Pawlish Mbaye moom mi nga xamante ni moo waral coow li jamono ji ginnaaw bi mu dóori animatrice bii di wuyoo ci firu Fifi nekk ca diaspora ci ab interview boo xamante ni siqoon na ko ak moom moom di def na ab vidéo di ci wax ak ay soppeem ci boobu boobule vidéo moom Pawlish mbay mi ngi xamal ni ku lu toll ni góor jigéen kenn waru koo jël di ko tuumaal nit rawatina moom nga xamante ni dafa nekk xale daal di nekk ci yoon kenn mus koo dégg ci ay coow moo tax mu yeewu ci nga xamante ni mooy peignoir di tux sisaam yor caabi otoom di xamal ay soppeem ni jum na te mu ngi leen di jéggalu waaye baaluwul benn animatrice wala benn journaliste ma ngay xamale itam moom Pawlish Mbaye ni moom dafa am ñaani waajur nekk xale bu nekk ci yoon am ñaanu xar ak ñaanu petit cola comme ni ko tàmm di defee rek nit ku saf xorom lool nit ko am te ne tàmm na di def ay déliram parce que ñëpp yaakaaroon nañ bu defee jëf ji ni mel dina ci xaw am kersa waaye loolu gisuñu ko ci moom ci jamono ni moom mooy directeur général bu site bi euh, di diaspora 221 déposé na ab plainte daat koy jëmale ci ki nga xamante ni mooy Pawlish mbay ndax jàpp na ne li nga xamante ni moom la def animatrice am bii di Fifi agression la lépp lu ci waat ci wàllum xibaar dina leen ko toppal mbokk yi